salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di euh, nuyu képp kuy Sénégal nekk fii ci États-Unis d'Amérique maa ngi lay jox sa wàccuwaay mu am lu ndaw rek lu ñu bëgg a ñëw ki nekk ci kàddu gi mooy Gora Ndongo li góora lañ koy wax bokk ci gan yi nga xam ne ñooy dugg ñoo doog a dugg fii ci dëkk bi ci États-Unis d'Amérique mu mel ni nag euh, wax ju bëri daf fi commencé woon a am. ba ci mu am ay émission rajo yoo xamante ne mu ngi fiy jàll ci at yi yëpp passé bëri nag loo xamante ne dafa négatif loo xamante ne dañ koy wax ci gan yi nga xam ne ñoo doog a dugg ci dëkk bi tey loolu laa ñëw pour indi ci dara parce que yàlla daf ma natoo ma nekk nitu association yàlla euh, ci mën-mënam moo dogal ci moom ko fépp fu mbooloo nekk rek yàlla mën na dogal ko mën naa fa nekk donc bu yàlla dogalee gan ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ci bëri doon ma déglu wala duñ di ñu déglu donc kon dafay jaadu bu yenn yi tegee suñu kaw ñu am lu ñu mën a def bu ko defee ñëpp dégguñu bi ci njëkk mooy traité nañ ñu ci li ñu dégg ci li ñu dégg ci rajo yi ay magi jëm traité nañ gan ñi de clochard traité nañ gan ñi dañuy toxu yàmba traité nañ gan ñi duñu liggéey traité nañ gan ñi dañoo turbulent c'est-à-dire wax bu mu ñaaw rek wax nañ ko bi ci njëkk bi may njëkk a wax mooy seen émission bi ngeen njëkk def déglu nañ ko déglu nañ ko du début à la fin ngeen woo kilifa diina gu màgg Sénégal ku ñëpp jox cër ku ñëpp di déglu tamit bi ngeen ko woowee lu ngeen ko laaj mooy que ni su ngeen xamul asile dafay rafet ñu leeral leen lan mooy asile ba pare asile benn dafa secret du ñëpp ñoo ci war a am accès bi ngeen woowee kilifa diine googu amul lu ngeen ko laaj lu dul amul lu ngeen ko wax sax laay wax lu dul gan yi nga xam ne ñoo jógee Brésil di dugg si fii première manque de respect baa ngi noonu foofu laa waroon a gën a yaatal ndax li waral joxuñ ñu gëdd bi mooy que ni déjà gan yi Brésil yi ngeen di wax musul leen ñoo boole sax comme ay sénégalais muy manque de considération benn bu njëkk am bu ngeen woowee kilifa diine googu li ngeen ko laaj mooy gan ñi nga xam ne day ñooy jóge Brésil di dugg ci dëkk bi góor jigéen lañuy ñuy pour dugg ci dëkk bi am na loo xam dafa ñaaw dafa ñaaw ci ñoo xamante ni ñii say rakk lañ ñii say doom lañ ñii say jarbaat lañ ñu ci bëri sax seeni sët lañu nga mën a yëkkati boobu wax di ko teg ci ndoddu su nit te ma wax la dara ci loo xamante ne xamul leen ko ñi dugg ci dëkk bi bu ñu dee téeméer juróom-ñett fukk yépp maanaam quatre vingt personnes yépp déglooguñ leen waxaguñu sax ba ñu mën leen traité bay xam ci lu ñu wax asile nekkul loo xamante ni dañ koy génn naan ko fàng ci mbedd mi bu doon loolu Amérique yor na doole joo xamante ni ci ku mu bëgg a enquête lu mu bëgg xam ci yow xam ko mais asile dafa secret nekkul lu kenn di dévoiler benn ñaareel bi ngeen tudd ci ngeen ñëw ci 116 lu leen neex wax ngeen ko ci booy nu ñu taxawee changé nangam nangam nangam mais ba leen di fàttali dara lu ndaw mooy que ni ab étage bu jubee ba nga mën a tegaat ci kaw fondement ba jub xam nga loolu mooy fondement wu san 116 moo kenn ñi fi nekk tey bi ngeen xalaatee defar ay place moo xam ay restaurant moo xam leneen ak leneen ak leneen yéen ñëpp seen xel 116 la leen jox 116 ñaata restaurant sénégalais moo fi nekk man de xam naa ci plus de sept restaurants sénégalais man li ma xam te gan laa fi xam naa fi plus de cinq place yu ñuy dugalee xaalis lépp mu ngi 116 te restaurant yi lan lay jaay ceebu jën ay maafe nangam leneen leneen ku ngeen koy jaay américain yi ngeen ko jaay wala espagnol mais sénégalais yi ngeen koy jaay kon yéen ñu fa woo benn ñaareel bi mooy xaalis yi ay orange money yi ngeen di dugal kan lañ koy dugal du américain yi sénégalais yi la kon yéen yéen ñu fa woo benn ci li may gën a insister di ci taxawaat mooy moto yi ngeen di tudd wala vélo yi gars yi ngeen di tudd maanaam bariwaayu moto yi wala bariwaayu vélo yu ñuy gaare ci tali bi nitu tali fokk mu taxaw ci tali vélo yi lu mu bari bari wala moto yi lu mu bari bari xale yi dañu liggéey jënd ko xale yi dañoo liggéey jënd moto yi wala ñu jënd velo yi moo waral seenub gaare sensé di bari kuy liggéey ci tali nag fokk nga taxaw ci tali xale yi bu ñu xëyee huit heures génn seeni kër dix heures lañ fay duggaat wala neuf heures parce que dañuy délivrer kuy délivrer nag ba amatoo odo boo yóbbu da taxaw nga waxtaan ak sa say xarit doon na gën a jekk wax ji wala doon na mu gëna a bu leen police di interpeller ñu wax leen ni leen seen gone yi dañuy sàcc wala seen gone yi dañuy agressé wala seen gone yi dañuy def nangam alhamdulilahi ba loolu yépp amu ci benen bi li ma ci benen bi ma ci soulever ngeen ni gone yi dañuy tux yamba mais nan ngay duggé ci dëkk nek fa gan xam lu yamba di jar wala nga xam fuñ koy jaaye ak nan lañ koy jëndé ba koy waxalé ci ko xamanteni ni langue bi am na wax yoo xamante ni ku koy teg ci sa ku koy teg ci sa ci sa ndoddu rakk wala nga koy teg ci sa ndoddu jarbaat na nga xoolaat bu baax li tax nag wax ji duñ ci mën a sori lu baree baree bari mooy gone yi nga xam ne ñoo fi juddoo bokk ñun génération suñuy xarit lañ ba pare jaxasoo na nag ñoom moo xam muy góor ñi wala muy jigéen ñi bu dee góor ñi ñooy ànd fubal yi ñooy ànd demi daayira kon am na lu wax yoo xamante ni duñ ko wax sax di leen tudd parce que am na fuñ leen teg dafa di nag nit bu dee wax day sóoraale ëllëg ndax li lépp day jeex ndax nettali ba mooy tax après rafetul ci yenn yi nga ko teg parce que gis gan suba waxtaan ak moom kii rek ni ko kayit moom bu ko fi yaakaar am na wax joxam dafa ñaaw dafa ñaaw ci dégg-dégg Baye Omar Niass de paa bi nga xam ni moo yor jàkkay ñaseen ji nekk bronze deux cent dix-neuf kooku fu mu woo gan yi dinañ ko wuyu fu mu soxla gan yi dinañ ko wuyu parce que mooy benn sénégalais boo xamante ni moo dindi jàkkaam moo dindi moo jël jàkkaam jox koy sénégalais génne yenn néeg yi jox koy sénégalais ba lu mat deux cent personne di fa tëdd mu leen di jox ndékki añ reer lu ci benn nit bu ci def ñaar dërëmam kooku fu mu woo gan ñi ñu wuy si ko Seydi Sarr soxna Seydi Sarr bi nekk Abissa tey liggéey ak Adja Soukayna fu mu woo gan ñi ñu wuy si ko Adama fàttewuñu la yow mi nga xam ni yaa sonn ba tax Sénégal ay am hôtel bu mën a def deux cent personnes ak soxna Fat Ndiaye affinité gan lépp loo koy lebal rek ne loo xam ndax gan ak xale ñoo yem su ñun soxla nañu bi ñuy dugg ci dëkk bi soxla nañ ku ñu jàppale bi ñuy ñëw ci dëkk bi soxla nañu bien sûr que ku ñu jàppale soxla nañu ku ñu orienté mais nag dafay rafet bu nit dee ñëw ci ngeen wax ni yor nañ yor ngeen fi association boo xamante ne ñun ci suñuy gëstu mooy mat na 6000 personnes bu ngeen bu ngeen déjà am 6000 personnes mais association boobu su fekkoon benn yoon toog ngeen ci seen rajo boobu def def émission ni nañu wut solution ci gan yi nga xam ne ñooy dugg dugg ci dëkk bi ndax chaque jour ngeen dégg fi vingt day dugg wala 40 wala 60 ñëpp di sénégalais di wax olof comme yéen ku ci amul rakk am nga ci am nga ci doom ku ci amul doom am nga ci sët wala muy sa jarbaat. amu leen benn yoon bu ngeen defee organisation pour nañu orienté booy yi orienté booy yi nag soxlawuñu ko yëkkati xaalis di jox kenn mais orientation booy yi dafay basé wu ci nga jéem ko wutal bu ñëwee fu mu tëdd ndax bari na ci ñoo xamante ñoo joxe woon seen i bi booy ñëwee ba ci camp bi nekk ci jeel bi woo leen téléphone dootu ñu leen jot ñu dégager seen responsabilité ñi génn di fanaan ci métro yi ba keroog ñu leen di mën a lijjanti ñu yem ci jàkka ji tëdd kon nak nit boko orienté wul ba mu meuna lijeenti bopam manam boko lijeenti wul ba mu meuna lijeenti bopam boppam ba mën a wala ba mi bari ci say bët nga ngar la amal ngor tok bu ko tuddu ndax ba dimbal jotee dimbali woko won gan nak poli euh, bari ko ci mbartal la mu dem ñàkk puus mu dem dekk bi ñepp la te dëkku luwaa la ko fi sap agn ding ko agn ci waye ko fi sa wërsag jeex di nga fi genn dégg nañ leen ngeen di nañ leen bàyyi ak policiers yi ñu def nangam yi ñu leen di rappeler leen pour ngeen dégg ko ñaan loowuñu kenn intervention pour ci policiers yi bàyyi leen policiers yi ñu def seeni liggéey dëkk bi dëkk yoon la dëkku droit la bu benn nit defee benn nit mooy fay amul benn nit def ñëpp fay loolu amul fenn ku def crime na laata sa crime ku def problème na laata sa problème ku deful kenn du la téye je défie na quiconque parce que déglu na lépp ngeen ne booy nungu ñu liggéey je défie quiconque ku ci mën a génne benn booy muy gan nekk ci dëkk bi nunguwul liggéey amut amul kenn ku ci mus a ñëw du baaw baab du pikin du fenn ngeen ñëw fa fekk fa booy gan ñu toog xiif amuñu ñu lekk ngeen fay leen lekk amu fi te gis nañ yu bari nag ci dëkk bi li tax nag duñ ko mentionné li tax duñu mentionné lu bari ci dëkk bi mooy que ni li ma leen wax sànq daf cee nekk mooy gone yi nga xam ne ñoo fi xësoo nekk dañoo xësoo boolook ñun ba pare ma jàpp ne sax nag ci samay xalaat bu gàtt ñun suñu ñëw fii ci dëkk bi arrangement wu suñu génération ñi nga xam ñoo tollool ku ci nekk nag na xool sa doom bu baax li ngi may wax nii ku ci nekk na xool sa doom ci ñi nga xam ne déjà ñu ngi New York parce que New York laa xam fi laa a waxee ku ci nekk na xool sa doom par rapport ak comportement ba mu amoon avant bi mu am léegi am na loo xamante ne ñun nag ñu ngi koy sant yàlla bu baax yàlla junni indi fii jox nañu lu ñu def suñu biir jox ñu lu ñu def suñu poos jox ñu lu ñu jox yóbbu suñu njaboot yàlla ji leen yor yàlla boobu moo ñu yor na rafet suñu diggante ak yéen ñun nekkuñu bras de fer ak yéen déedéet jaayantewuñu ak yéen doole benn preuve rek laa ciy jël bi màggal gi jubsee lépp li nga xam ne Baye Basirou dajale woon na ko moom mi fi jëwriñ ci daa ñëw fekk leen yéen ñi nga xam ni yéen a yor programme màgg gi ñu jox leen ko ba pare ni leen lépp luy liggéeyu doole bàyyi leen ko ak ñun su ngeen yoree doom mel noonu su ngeen yoree jarbaat yu mel noonu su ngeen yoree ay rakk yu mel noonu da leen di puus am ci ñoom yërmande gan dafa soxla ku ko yërëm dafa soxla ku ko dimbali ba nii ñuy wax ak yéen nag ba naga ni ba tey mi ñuy wax ak yéen soxla nañ leen ndax dañoo soxla seen dimbal suñuy papa ngeen di doon suñuy mag ngeen di doon suñuy ndijaay ngeen di doon ba ilaa yow mi din amul dara lu ci change leneen nag li gën a vaccé parce que gis nañ orientation débat bi ba man woote naa ci rajo bi woo ki yor rajo bi ne ko nañ def émission pour ñu leeral ba nëgë ni aw ma dara lu positif loolu moo waral interview bii ma def ko tey li waral nag lu bari mooy élection yi nga xam ne moo romb moment bii may waxee yéen ñaari président moo am ci ci ci fii Amérique ñaari président ci association sénégalaise bi ñaari président la parce que déjà ñun gan ñi bi ñu ñëwee jub si leen yéen ci seen association ngeen xam ni élection yi benn semaine moo ci des da ngeen a bind ci seeni papier daal ni ku amul ci dëkk bi ñaari at doo voté loolu mooy yéen ak ñuy wut si mais bëgguñu leen boolewuñu leen ci nekku leen ay sénégalais amul problème parce que li waral ngeen def loolu ñun xam nañ ko mooy gan ñi dañoo jël bopp jox ko sëñ Mbacke Ndiaye li tax ñu jox ko bopp mooy mooy benn nit bu fi nekk gan go fi soxlo changement wu adresse mu changer lako mak mo fi waxtana mu la dem ci seigne Mbacke ndjay mo ci gëna yewel di dugalal xale yi seen demande asile di lako tegal ci condition yu leer donte sax dang koy neexal mais dina lako ko falal ba lépp mëna a yomb ci yow léegi nak ñun koku buñ ko gisé mak ñi wóolu ko ñu dégg ne day dem candidature buñ ko jàppale wu nan lañu def parce que ñun dañu soxla aide dañu soxla aide ba naga ni nag ñu ngi topat ci seen ginnaw di balwaat ñëpp ak ñu ci wax pour vaccin kenn waaye nag li may jeexale mooy gan mom, yàgg na ci tuuma gan yàgg naa nekk ci kër lu fa dëng ñu ne gan gi wala lu fa réer ñu ne gan gi loolu amul problème di soññaat nag samay mbokk di soññaat sumay xarit muy ñuy samay mag ñuy samay ndijaay ñëpp di gan ma ngi leen di soñ ngeen ñëpp nañu jël wax ji yëpp critique yeeg yëpp nañ ko jël def ko jàngat bu ci kenn jàpp kenn muy sam non. respect bi ñu leen joxoon na gën a waye tamit ba ren ba ren di déwén fep fuñ ñi sentu ci yenn yi nañu gorlu ba buñ fa kenn fekk nañu gorlu ba baax ba buñ fa kenn fekk seen auto yu ñuy tuddu ndax da ngeen di def double ba triple parking Auto yombul liggéey do nga wóor da ngeen liggéey jënd ko da ngeen liggéey jënd ko alhamdulilah nak ñu ngi sant yalla parce que du du du du diir mbagg du dara du diir mbag du dara waye dafa rafet rek soo yoree sa jarbaat wala nga yor sa doom wala nga yor sa leneen nga xool noo ko orienté moo mën a jub xam nañ bu baax nag ay dégg nañ ci koy wax dañuy topp blague américain mais blague nan la gan mën a ñëwee bëggati ci blague am na loo xamante ni xel ko nangu nan la gan mën a ñëwee ci dëkk bi xamul dèjà tudd ngeen fi kuy togg ci ci bi xam nañ ko fay ak ña jaay ñaan ña fay jaay 17 ans lay am ci dëkk bi lañ juddoo da nga xam ne ñoo doon jaay 17 ans la am ci dëkk bi lañ juddoo waaye nag li ñu wax sànq rek daf cee nekk mooy que ginnaaw booloon nañ ñun ñëpp Nek ben, nañu jema fexé yeen ñi nga xamni yeen kilifa yi ngeen ñoo bokk ñu rek ñu continuer and li rek la aduna du neex wala muy nakari ba ñu nek leneen lu dul seeni dom wala seeni jarbat wala seeni rak. loolu ñu fasiyene nek ba keroog ngi faatu waye nak wax fay rafet ko bu juggé rek nga xol ni nga koy waxé ñoo ngi waat ñepp nak di waat ak ñepp kaddu gu bu ci amé dara lu dëng rek ci sunu njuumte tala ñoo ngi santat ñepp nak di bu baax nak Baye Baye Omar Niass ak ñi fi ma xamni man fi la jaar ba duggu di gërëm wa Ohio grand jaga mi nga xamni moma ma dalaloon bi ma wàccee fii ñëw kër euh, maire sen digal maire bu baax wax deug yalla genn yi genn yenn neegi jox ko ay gan ba nëgan nit ñi dañuy tëdd ba tëdd ci salwa ba ak père Baye ndjay ñu leen di gërëm bu baax ba Omar Niass jërëjëf Abissa soxna Aji soxna Fat ndjay ñu ngi leen di jaar bu baax Adama jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaarat bu baax di wat ñëpp di woowaat gan ñi ci jub ak jubal rek incha allahu rabbi yàlla dina defal lépp soobee yàlla jërë ngeen jëf